Youssou Jigéen Ndour nekk artiste musicien bu kenn dootul présenté fii ci réew mi ginnaaw rek ci ab xeex bu mu seqoon nag soxnaam si di Aïda Coulibaly ndax Youssou Jigéen Ndour dafa daal di tàggu soxnaam si di Aïda ndiki samedi xamal ko ne ko dafa ame benn réunion de travail te amaana sax dana fa guddee ci noonee rek la Aïda daal di ame ñaaw njort ci li nga xamante ni borom këram boobee na ko ko ci la ko daal di toppaloo ginnaaw rek ci ay piste yoo xamante ne nii rek ay xaritam jox nañ ko ko ndax moom dafa ñaawoon njort ci li nga xamante ni borom këram boobee wax na ko ko ci noonee rek la daal di gisee otoom rek ci benn immeuble bu nekk Ndakaaru waaye nag dafa daal di créer foofu benn scandale daal di koy génne ba ci biti daal di koy xaawi suturaam daal di koy door dóor metti métti askan bi nag daal ci jaaxle lool ginnaaw rek buñ sukkandikoo rek ci Walfadjri mi xam ne yooyu lekk information ci noonee rek la askan bi daal di sampee ab laaj daal di jëmee ci mbir moomu ndax Youssou jigéen Ndour dafa war a rek sàng boppam xam li muy def ndax dafa nekk kilifa waaye itam ndax dafa war a yar ki nga xamante ni moo di soxnaam nekk na nag mbir mu doy waar lool ñëpp rek ñu ngi ci yëy yàbbi rek jamono ji en tout cas daal liñ mën a jàpp rek moo di kii di kulibal yi dafa dóor dóor yi métti ki nga xamante ni moo di borom këram bii di Youssou Madjiguène Ndour ndax daf ko fekk rek muy doxaan ci benn appartement